inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokku jullit ñi mbokku taalibe yi euh, gannaaw biñ leen nuyoo ziar leen euh, di jiital alxalifatul am di tariqatu muridiya sëriñ Muntaqa Basiru di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi lool te wér Mbàkke di ko ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall xalifatu kullu Baay Fall Euh, di ko ñaanal kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi ñi ngi fii nag euh, di wéy di ànd ak yéen ci seen liggéey bi nga xam ni mooy liggéeyu sëriñ bi fii ci euh, Maroc ànd ceeg daayira Touba Fathul Xafaar ren nag 13 avril 2019 ñu amale bisu xaside yi fii ci Dakhla ànd kook cellule la bi nga xam ni mbooloo mi ñoo taxawal bés bu màgg bi bés bu tawféexe bi ñu toog ak nag sunu jëwriñ jëwriñ Moustapha Sylla euh, bokk nag ci euh, ñu toog ak euh, sunu jëwriñ jëwriñ Moustapha Sylla mm, bokk ci jiite fi nga xam ni mooy liggéeyu culturel bi fii ci daayira Fatxul Xafaar dax la sëñ Moustapha tey de dafa mel ni duñu waxee culturel wax xam-xam tey bés bi mbokku taalibe yi lan lañ ci feesal seen yéene ci diggante alxuraan ji ak xasida yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp mbokki jullit ñëpp di di siyaar hmm? waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu tamit ak wér di siyaare mboolem ñoo xam si rek ñoom lañ bokk ànd ak ñoom liggéey di ci jiital ñu xam si ne ñooy daayira Fatahul Xafaar bu Maroc euh, ñi xam si ne euh, sunna xasida bi xam si ne moom la ñu organiser ren ñu war ko defee ko fii ci ndax la te ñun suñu borom dogal ñu donc dénk ñu wàllu lu jëm ci alxuraan bi culturel bi ak xasaay bi wax euh, yàlla ñu ciy doxee comme li nga xam ne noonu la ñu ko jëwriñu sante ba nu xëyee ba léegi suba ba léegi ñu ngi ci ci loolu la nekkoon yàlla dogal na jot nañoo wàcce ñaari kaamil ci suba xasaayid yi tamit jot nañ ci am ay lim yu xaw a takku ah, ci tënk rek ndax yi fi jàng yëpp mënee su koo lim waaye yi nga xam si ne ñoo fi gën a ëpp solo te mu xaw a gën a bari rek ñoo ci fàttali lim boobu rek jàng nañ fi lim bu lu toll ci mafaatihul bisri ñaar fukk ak juróom ñu jàng fi ci lu toll nuur daare ni fukk ak juróom ñu jàng fi ci lu toll jësbul xulóob fanweer gis bu xulub jàng nañ ko fi tey sur ansir tamit jàng nañ ci lu tollook euh, ñaar fukk moom tamit ñu jàng ci lu tollook mawaahibun naafi'un téeméer ak juróom ah, matlab foofu sëy ni tamit jàng nañ ci lim bu tollook euh, fukk muqaddamatul amdah jàng nañ ci fukk ak ñett jaalibatul maraaxib ñu jàng ci juróom ñett fukk ak ñett kon dafa mel na rek lim bi bari na bariwul waaye am na ci yeneen yoo xam si ne tënk ko lim ko temps bi moo ko doon maye waaye wax dëgg yàlla mbokk taalibe bi ñu xëyee ba léegi ñu ngi ci li xam si ne mooy ndigal li ñu sosoon muy eh, toog fii ci barab bi xam si ne jëmmal bis bi te dara warula ko lu may sant Serigne Touba di ko sante ci li jëm ci wàllu xasida waaw waaw di ko sant ci lu jëm ci wàllu xasida ndax ñun xasida dañoo amul lenn lu moom kon mu ko wootee wutal ko ab bis di ko defee fii ci Maroc dafa mel ne kon ñun li ñu war rek mooy def ci sunu kem kàttan li nu man lépp ñu def ko ca ba def ci lu ñu mënut wax dëgg yàlla mbokki taalibe yi wuy si nañu ci woote bi ndax jàpp nañ ci jàng moom baax a baax a baax ba tax na liggéey bu daal dañuy ñaan rek sunu borom defal ñu ñu fekk ko ay at i at saa yu ñëwee rek mu gën a yaatu gën a sakkan gën a neex comme ni ko sëñ bi di waxee rek ah, yàlla sunu borom defal teewaat ko ay ati ati at te defe ko li nga xam ne si ne ñoom la ko sëriñ bëggee dañu am ci ngërëmu sëriñ Tuubaa ndax ñun dara ñuru ñu dul ngërëm sëriñ Tuubaa rek loolu tamit ñi sant ñëpp ñoo xam si teew nañ fi di sant waale ñi nga xam si ne mooy euh, waa euh, Touba Touba vision yi nga xam si ne ñoom tamit liggéey wax dëgg yàlla def nañu seen waar comme ni ñu ko bëggee woon kon daal dafa mel ne loolu ci tënk rek mooy li nga xam si ne ñun moom la ñu déggoon ñu fas yéene ci indi ay leeral rek kon dafa mel ne daal dañuy daal di sant santaat mbokk yi rek bu baax a baax ci wuy si gën wuy si ndax woote ñu la dafa jafe kon suñu wootee bu ñu wuy bis bi nga xam si ne ku wuy sa njariñ la day bis boo xam si ne njariñ donc moo ci nekk kon dañuy ñaan rek yàlla nañu suñu borom lépp lu fi def mu nangul ñu ko yi dencal ñu ko fi yàq yëggul ci barke xaadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaanal suñu borom tamit yàggal fi lool sëñ Muntaxa ak mboole jullit rek ci barke xaadim ba mu àggale li nga xam si ne mooy yéenem te ñu bokk ànd ak moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf sëñ Moustapha Sylla di la jaajëfal ndeysaan ci liggéey bu am solo bi ci li nga xam ne mbokku taalibe yi tey dundal nañ ko fii bërëb bi ah, lii nga fi lim bërëb buñ ko jàng xel war naa mën a dal ci réew moomu. ndax euh, li sëriñ bi wax ci xasida yi waaw kon euh, euh, ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal mbooloo mi nga àndal di liggéeyal fii sëriñ bi yor fi culturel gi fii ci Touba Fatxul Xafaar dax la kon mbokk yi noonu la ñuy ànd yéen ci liggéeyal sëriñ tubaab bi ci bésu xaside yi nga xam ni moom lañ fii def fii ci dax la Maroc ànd ceeg Touba Vision la télé qui suit l'enseignement de Khadim sol jërëjëf